peux pas avoir de sikkim c'est ça ton problème d'où coiffeur quoi à gis d'où coiffeur quest la gis <laughs> amoo fii ci kaw amoo fii tu ne peux pas d'où donc donc donc c'est pas la faute de Bassirou Diomaye franchement si toi Doudou Bassi Diomaye a quelque chose que toi tu peux pas avoir toi tu peux pas être barbu tu ne peux pas tu finis ton toll nii fa ton toll c'est si barbu tu es pour man xam man man presque ibaadu là man hmm. presque presque presque man je suis à moitié de moi hmm. donc man euh, euh, man man nang ngi si Bassirou Diomaye kee nag nee nga xees naa kii euh, Guy Marius euh, mais nag bul fàtte nag euh, Doudou Guy Marius euh deug deug euh yim fi def yépp fi kenn mënu ko prouver. ah ah man waxaguma dara sax di. non kenn mënu ko prouver kenn mënu ko waxal dara. mais mais mais yaangi merdi non non du lolu mais Doudou yaangi ngi mer candidat. mais waro ba ba ba nga ne dégg na tuba mais ba su jomay fi moo gën a dégg tubaab parce que jomay fi tubaab lay lak mané tubaab rek lay làkk xam naa ni suba bu ma defee émission wa hmm. jàpp Basiirou Diomaye mii waa xanaa kon ak Bougane ne waa waa waa léegi euh, euh, euh, duud waaw léegi duud ma xam man duud ma yow duud dangaa bëgg démissionné dangaa bëgg bàyyi Public SN te te ñeme woo démissionné nga bëgg ko la pousser à la sortie wala qu'est-ce qui se passe ah, parce que nag du ma la seetaan fii ngay attaqué Diomaye ngay sa garaawul hmm. waaw non non sa Bougane c'est ndax man mu xam nga xam tam mënumaa bëggandoo ñëpp mënumaa euh, bëgg lat lat bëgg basiru bëgg tamit bëri xalaale bugaan bugaan euh, trois balance bi ñaari balance la waaw bugaan moom ñeme naa ko il n'a rien à perdre homme la nangam mm. euh, waaye Bassirou Diomaye moom du je ne te ngay wax benn benn gros mot ci Bassirou Diomaye du ma ko nangu ça je ne l'accepte pas Bassirou Diomaye moom duudu moom kon léegi dafa am censure da nga am censure loolu moom kooku public SN léegi public SN public SN bu kenn wax dara jomaay waaw non jomaay bu ko kenn wax dara waaw hmm. loolu moom mesure waxoon fii eh. nga ne vous êtes libre liberté de maa waxoon dama ko mujjee maa waxoon waxeet fii non jomaay je ne à personne fii du ko fi attaqué kon suba Youssou Ndour lay xëy waa duudu nag yow mais <laughs> man duudu man mais man duudu man duudu duudu man waa duudu man lan laal def duudu ah man duudu man xam nga lan laal def na duudu nañu woon dëgg na duudu lan laal def yow yow yaa ngi bokk nag sa bat sa bat li jaaz mais bëgg ma yàqal sama Youssou Ndour mais man duudu man lan laal def <laughs> man je ne comprends pas. xam nga ne xam nga xam nga dama bëgg a dugg si foofu moom foofu moom mën nga bëgg a yàq directement immédiatement nga ma bëgg a yàqee immédiat ndax xam naa ni benn seetaan moo ñëw daggati ko këppati ko xam nga fi ñu toll man maa ngi sursi TFM sursi laa nekk du nañoon dëgg man je suis en tey tey tey boo fi waxee benn gros mot fii benn seetaan mooy toll fee dem dagg affaire bi waaxu bàyyi bu yuusu xam nga yuusu euh, euh, artiste la guddi gi day way bëccëg bi lay nelaw mm. moom xam nga moom yuusu moom ay ay ay 17 heures je ci liñ ma wax mm. xam nga miinu ma ko ay 17 heures laa dégg na ci lay yeewu donc bu yeewu dañuy bàyyi seetaan yi dañuy bàyyi bu yuusu yeewu toog non di naan café café noir. ñu dagg affaire ñu ñu xool ñu ñëw na ko xool Aïssatou li mu wax. ne du yow yaa wax. waaw mais xam non bu ñu nee Aïssatou xam nga ni public SN bi lu fu ñu wax dañu naan les gens vont croire que maa nekk si ginnaaw su dul ko xam nga ni ñu gisee nii xam nañu man man mënoon lu mal dara dañu naan Aïssatou ak du du xaritam la. Mm-hmm. ñàkkul ma wax ko wala nangam quelque chose comme ça du ñëw def excès de zèle. mais mon Doudou man sama sourcil bi levé complètement Doudou tu es en train de jouer avec mon avenir hein? parce que moi affaire TFM ay GFM Je suis nga je suis en sursis comme ma waaw yow euh, man man sérieux affaire euh, TFM Futur Média affaire yoyu, bul laal je suis mhm. de côté parce que man je suis en sursis mhm. euh, dàq guñ ma xëy na ngi réfléchir naan kii dañ koy sauver duñ ko sauver affaire yooyu te comme man vraiment drapeau blanc laa agité waxuma mhm. si ñoom dara lu ñaaw mhm. maa ngi toog sama ruq hein, hein, hein, donc di di di di en chômage technique dégg nga donc bul ma fa yàqal sama sursis je suis en sursis fait Euh, donc ñu ngi xam naa ñu ngi lijjanti sama cas xool ba xam kii vraiment qu'est-ce qu'on va faire d'elle Mm. kon bul ma fa indi benn problème ndax yow sauvé nga sa bopp ba pare mais man doo ma fee ah. donc fee affaire yuusu moom teg ko fee de côté léegi nag euh, yi moom c'est mon coup de cœur ci homme politique yi waaw non jomaay bu leen ko laal jomaay daal ko ko mënul waxal lu baax nga màndu ci noppi